garab gi ñu jëlee alluwa yooyu ci duuru suñu ñu wax zumurrud al axdar ci la bàyyi ko ne yàlla digal jibril mu andi ko mu bindal Moussa tawreet ci loxoom moom jibril Moussa di dégg xëy xëy ji kara xëy xëy ji xalima gi ne yàlla moo ko bindal tawreet ba mu koy bind mi ngi dégg xëy xëy ji xalima gi ci alluwa yi وبين الكتب من كل شيء موعظة وتفصيلا نقول ألف الله لي مدق الموسى مجلكو أتنكم جل ديسو كل ريس نك مو يو يكتي ألوي ba teg ko ci kawam ba yan ko ko mais du ko yenee Moussa waxante borom ne ko ana kan moo attan alwa yi ak li ci nekk ci ak leer ak i beral ak i kolere nee na mu ne ko bind naa ay mbindeef yoo xam ne attan nañ ko nee na yàlla moo ko dal di yabalal ay malaayika yoo xam ne ñoo ko gàddul ci limu araf yi nekk ci tawret malaaka yi toll nit li moom araf yi nekk ci tawreet ñu gàddal ko ba yóbbul ko Moussa fa mu bëgg nee na loolu mooy li aju ci alluwa yi yàlla joxoon Moussa te wax ni wa katabna lahu fi lalwaahi min kulli shay'in maw'izatan wa li kulli shay wax nañ ni bokk تلا ci la waaraatee تألو بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله الملك الدبار العزيز القهار لعبده ورسوله موسى بن عمران أن سبهني وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك بي شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المسيح وهيك حياة طيبة ولا تقتل الناس التي حرم الله إلا بالحق فأضيق عليك السماء بأقطارها Indi bokku na ci alluwa yim bindoon bismillahir rahmanir rahim mu ne ab téere la bu joge ci yalla ni bor di ab kon di aji tedd di ab kon jëme ko ci jaamam di ab yonentem mo sab imran dama lay digal moy nga may sabbal di ma taqdis ndax amul ben bor dul man nga may jaamu ta bul bokale dara ci man ta di ma sant di sant sa ñaari jur ndax sama mujuk mujuk lepp day ci man la jamte boko ko na dundal dundugo tay ne ko bul rey bakkan bi yàlla araamal bu boobaa day dana xatal asamaan ak ay goxam ak suuf ak yaatoom ci yow ne ko bul giñ mukk ci sama tur ay fan ndax kat du ma laabal du ma sellal kenn ku dul màggal sama tur kon sama tur bu ci giñ aw fan mukk ndax kat du laabal du ma sellal kenn ku dul magal sama wutur kon sama wutur bu ci giñ aw tan mukk bul séré mukk yit lu sa nopp deggul sabab jisukoh. gisu ko te sa xol taxawu ja moy ta wahyu yi wuñ la rek ndax na nga xamni kat ñu doon séré dana leen taxawal yowal xiyam ci lañ séré won laaj leen lañ doon séré ko mosa bil iñane nit ñi ci leen yalla jox ci lima leen jox ci sama ngeenel bi leen ko iñane lima ma leen jox ci sama bi leen ko iñane ndax ko iñane kat noonu samay xéewal la ku iñaan dafa mel ni dafay bañ sama euh, sama séddale moo ko neexut ne ko bul njaaloo bul sàcc ndax boo ko defee di danaa yiir sama kanam ci yow ba doo agsi danaa tëj sag ñaan samay bunt ba sag ñaan du agsi du agsi ci asamaan Moussa bul rendil kenn ku dul man bul reyal kenn ku dul man ndax xeeti jaamu yi ci kaw suuf kat dara du ci agsi ci man lu dul luñ tudd luñ ci tudd sama tur ne ko bul kàccoor mukk ci ci soxna sa dëkkandoo ndax loolu day sànja bu rëy la fi man ko képp ku njaaloo soxna sa dëkkandoom day mer mu rëy rëy lay fekk fii fi man ni ko na nga nit ñi li nga bëggal sa bopp yow Moussa nanga leen bañal li nga bañal sa bopp lii mooy nusxa fukki baat yi te fukki baat euh, yooyu mooy nusxa boobu lépp يلا جخنا كو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تي فكي بعد أجر نت مي لم وقت سورة الإسراء نوى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آية بوبي tambule fofi ba ca mimma awha ilayka rabbuka min alhikma loli mbolam liñ denkon musa ci bir alwo yoyi yalla tank nako ci ginnaaw bi mu dajalewaat ko ci ñetti aaya ci sootu lan aam muy xul taala watlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana ba ca zalikum wasaykum bihi laallakum tattaquuna ja ñetti aaya yi mboolem dénkaat boobu ñu dénkoon Moussa daje na ci jële nañ ci kaabul ahbaar mu wax ni dafa gis benn fóore ci yahood yi bu bokk ci yahood yi muy jooy nee na mu laaj bi mu fekkee fóore ji muy jooy mu ne ko lu lay jooyloo mu ne ko dafa am lu ma fàttaliku rek kaat ni ko ndax sa diggante yàlla su ma la waxee li la tax su ma la waxee li la tax di jooy da nga ma dëggal mu ne ko waaw mu ne ko sa diggante yàlla ndax fekkoo ci téeréb yàlla bi mu wàcce woon ci Muusa alayhi salaatu wasalaam yàlla waxanteeg Muusa ndax fekkoo woon ci téere boobu bi ni Muusa dafa mas a xool tawreet benn yoon ndax di wax man di gis naa aw xeet woo xam ne